ndaje mu mel nii bu fi amee wax ju rafet am fi ñun day yell aussi ñu mën cee wax ndax doomu Mbàkke liñ séq ak moom du micro du ay barrière du ay chaise du ay sonorisation du ay timbre major liñ séq ak moom ku nekk Mbàkke xam nga ko bi ci mujj mooy élection yi nga xamante ne moom lañ génn ku ma gis gis ko sama wet gis sàmba sama wet gis Laxaat sama wet gis Mansoor sama wet loolu nag man du am bis ma koy caaxaane wala ma koy sàggane du ma gën a gore lépp lu ma ci def lu ma war la te lépp lu ci war pour nga am ndam danaa ci ànd ak yow ba mu jeex lii dañ koo tàmbalee rek ñëw prendre en charge toute l'organisation waaye nekkul loo xamante ni foofu lañuy ñuy yem danañ la jàppale ci ay car danañ la jàppale ci ay billets danañ la jàppale ci mobilisation loolu maa la ko wax te dinaa ko def leneen li ci war mooy di remercier waa CDG di remercier xol mi fi jaar sama rakk la bokk nañ terrain football dóorante nañ daal waaye tey bu bu ñaawoon démb tey du rafet donc ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax yow tamit li nga bëgg yàlla ko yàlla defal sa wéy juur yàlla na ay yaxam sedd yàlla xare ko àjjana li ñuy wax lenn rek la mbàkke lañ dëkk ñoo ko moom lu ñu am mbàkke la ay ndaw lañ mënuñoo am lu sut mbàkke mënuñoo am lu ëpp mbàkke te ñun dañoo ànd ak kilifa di liggéey te kilifa googu ñuy ànd ak di liggéey mooy la maire de Mbacké ki nga xamante ni moom la fi yàlla teg muy le DG Gallo Ba ñu koy ñaanal tawféex tey taysir di ko ñaanal yàlla yokk ko ndax am na une vision sur le sport am na loo xamante ni bëggal na ko sport te wax na ma dégg def na ko ci programme am te waxaat na ko ma dégg te def na ko ñu gis donc doomu Mbàkke tey kàdduy cant la da ngaa gore ànd ak ñun nekk suñu ginnaaw laajoo ñu dara da ngaa am bis doo ñu gën a gore dañuy nekk sa kanam nekk sa ginnaaw nekk ci kaw nekk ci suuf foo ñu woowee ñu ñëw fu ñu doomi Mbàkke woowe ñu ñëw ndax ñun suñu carte d'identité mooy Mbàkke amuñ lu dul Mbàkke amuñ lu sut Mbàkke amuñ lu ëpp Mbàkke donc Mbàkke forever Mbàkke tey ak suba Mbàkke ba faw jaajëf